jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci Lutte TV wasaare làmb ak Lutte Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñu toog koo xamante ne kenn du ko présenté ci làmb muy suñu papa Bourkhane mu yor ki nga xamante ni mooy sampion bi di Boy Niang de 2. bëggoon waxtaan ak moom waxtaan boobu lu yaatoo yaatoo yaatu gannaaw loolu dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet di su ko defee ñëweel waxtaan bi père maa ngi lay nuyu baax di la siyaar. Euh, maa ngi lay fay. onze bi kalimaatilaay taamaati min sharri maa xalaqa ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci bàyyi laay ak Seydi ñuy nuyu internet yëpp eh, eh, wasaare ak eh, Lutte Sénégal ak Lutte TV di wax Sénégal yàlla na fi jàmm wàcc feebar bii di Covid 19 yàlla na génn ci àdduna bi yëpp maa ngi nuyu nag sama mbokku manaat yi sama mbokku mbër sama mbokku promoteur yi entraîneur yi CNG ak sunu ministre tutelle. di wax tamit euh, vraiment ñu ngi gërëm sénégalais yëpp. plus particulièrement nag lions yi nga xam ni ñoo bëggal réew mi ci fan yi jël euh, Coupe d'Afrique bi nga xam ni lu ñu tële woon am la. ba tey ji ñu réussir ko day wane ne rek Sénégal moom. wax dëgg yàlla yaakaar bu mag lañ ci am tànku kanam la am mais amatul tànku ginnaaw waaw am na solo Père euh, match Sénégal bi dugal gaño bi bi mu amee Sadio Mané dóor bal bi wala mu raté woon penalty teg bal bi dóor ko bi muy tegaat deuxième fois bi ban yëg-yëg ci am ak loo sentir moment boobu. xam nga sénégalais yi ñoom ñoo wane seen bopp. sénégalais yi ñoom dañoo gëmoon ni a tout prix dañuy gagné. Hmm. même bi nga xamante ni Sadio Mané raté na euh, penalty bi ci septième minute. ba tey sénégalais yi dañu am confiance ci dañuy gagné parce que avant match bi fekk na ñëpp génne seeni i matériel musique mm. rond boo gis nit ñaa nga fa. Mm. bi match bi commencé ñëpp dugaat ci biir mais bi tere bi di ñëpp ci biti la leen fekk. Mm. ñu ci bari toog ci biir dañuy déglu rek ay yuuxu daal di daw xoolaat seen écran kon amoon nañu confiance ci ni ñoom euh, dañuy gagné à tout prix. ndax mënoon nañoo gagné ci bu fekkee ne dugaloon na Sadio Mané dugaloon na. bit boobu. Mm. waaye mënoon nañu gagné aussi ci tiro bit yi parce que amoon nañu toujours confiance. Mm. Euh, lii lu raar la ci Sénégal am na jamono yoo xam ne nit ñi sax du ñu am confiance ci équipe bi mm. mais cet fois-ci nit ñi dañoo amoon confiance ci dañuy gagné. parce que au préalable nit ñi kenn ku si nekk yaa ngi doon joxe sax ay résultats di wax ni ay 3-0 ñi di wax ay trois 1 ñi di ay 2 kon toujours gëm ne dañoo dañu war a gagné man nag bokkoon naa ci ñi nga xam ni. bi ñu ba ci tiro vraiment nangootuma woon seetaan euh, tiir yi suñu yuuxoo daal ma xool euh, rediffusion bi laay laay laay laay xool parce que dama amoon habitude chaque fois suñu amee yaakaar rek yaakaar bi tas mm-hmm. mais nag cette fois si moom vraiment li ñu bëggoon am nañ ko ah ñu ciy gërëm nag tous les sénégalais parce que kenn ku nekk dugal nga ci sa loxo pour que ñu am réussite Mm. waaw. Euh, ñu lay jaajëfal bu baax keroog ñu ñëw ci li nga xamante ni euh, moo xew booy Niang numéro 2 ñu gis ko keroog mu def benn point de presse mm. euh, wax ci ci combat diggante moo Balla Gaye mm. ba am jot lu mu ci jot a wax mooy bu Balla Gaye bu wéree bu fekkee daa bëri jéeg Gris Bordeaux te bëriwul ak moom moom booy Niang numéro 2 dootul bëri combat boobu. dootul bëri ki nga xamante ne mooy Balla Gaye yow ban gis-gis nga ci am en tant ki nga xamante ne mooy ménager Boy Niang. waaw man gis-gis bi ma bi ma am man particulièrement Mm, mooy dañu wax ni kenn ku nekk jox nañ la date promoteur bi dafa waxoon ni su fekkee ni Pape Thialis joxe na date moom aussitôt day joxe date bi Pape Thialis joxee date mu ne mars la kii di bëre euh, non Eumeu Sène ak Bombardier mais mois de mai après koor gi mm. Boy Niang bëri ak Balla Gaye mois de juillet euh, Gris Bordeaux bëre ak euh, Balla hmm. alors comme ñun nag contrat la si signé te contrat bi c'est bien défini ndax saison la ñun jàpp nañu ni Balla Gaye mënul wér ci diggante bi dem di ci bëri jeeg Gris Bordeaux kii dafa am fracture këlee nee na dafa feebar ñun leen dem leen faju ji mais même bu ñu ñëwee wér dañ lay jox dat pour saat datu Gris Bordeaux mais duñ jël sa dat yow jox ko Gris Bordeaux kon loolu man xam naa Gaston Gaston c'est une personne qui est très juste am na loo xam ne du ko def te moom moo joxe woon ay date gis na ne entre temps am na ñuy déclaré feebar mu ne léegi nag su ngeen wéree su ngeen wéree nag yéen ñaar ñëpp a wér su ngeen wéree yéen ñaar mënuñoo jël combat Boy Niang ne ko demal nga toog ba pare de day dem bëri jéggi Bordeaux. Mm. parce que wér nga te contrat bi li ci nekkoon mooy. Euh, si saison bi ngeen war a bëri jox nañ la dat ni la mois de mai ci nga war a bëri mois de mai entre temps blessure am na feebar tamit am na ñun leen dem leen ngeen faju su ngeen fajoo ba wér léegi combat bi bi nga xam ne moom la Gris Bordeaux waroon bëri moom la ñuy puus yéen seen combat ñëw dugg te yaakaar naa sax mois de mai dinañ ci bëri parce que mo Boy Niang day wér Balla Gaye day wér kon loolu man loolu rek laa ci mën a wax. Hmm. kon yow njort nga ni combat boobu dina dina am. mois de mai am incha allah. parce que du ñu gis ni Boy Niang chaque fois ni muy dégager mooy wane ni Balla Gaye dë ñemewu ko yow da ngay loolu. xam nga Balla Gaye ñemewu ma man duma ko en tant que responsable duma ko wax. Hmm. combat la boo xam ni ñun dañ koy préparer préparer bi ci war képp ku la wax ne da ngay doo dem rek toog ne xade xaar ne Balla Gaye ñemewu ma rek ba doo entraîné ji. Hmm. da ngay dem uti ay potentiel yu tax. te am na lu jot a nekk ci moom. Mhm. dañuy dem yokkaat potentiel pour dem bëri jeeg Balla Gaye tey am na wax yoo xam ne waxi mbër la rek parce que Gaston musul wax ni du ngeen bëre deux mille vingt trois laa leen di yóbbu mais pourtant Aziz moom toog na ni su ngeen daanul du ñu bëri yow te boobu ñoom daanaguñu. Mhm. bi ma leen posé question bi ñoom dañoo wax ni ñun dañuy daan te daanuñu. Mhm. ñun ñaar ñëpp ñoo bokk benn position. kon ñun toujours suñu combat amul lu ko fi mën a dindi. soo toogee nag ba ñu bëree ba pare ñii di ñëw di wax naan ay deux mille vingt trois ngeen di baree ak nangam ak nangam te promoteur bi waxu ko ñun ça n'engage que ñoom loolu ñoom lay intéressé ñun contrat bi ñu si signé wuñu ko ak Aziz si wu ko ak Balla si signé ko ak entourage yu Balla Gaye ñun ki ñu ko signé mooy le promoteur Gaston Mbengue te Gaston Mbengue li mu ñu wax set très clair te loolu ñu ngi di téye nee naa la Gaston fait partie des personnes les plus justes. Mm. du wax waxam ba pare ñu ñëpp dégg ko muy tourner di defaat leneen. Mm. parce que gisul benn intérêt pour def ko. day tëgg làmb pour promouvoir les jeunes sénégalais. xool na ni Balla Gaye war na mën am quatre combats mu wutal ko quatre combats xool na ni Boy ñaam mën na bëre ak Tapha ba pare bëriwaat beneen combat ak Balla Gaye. Mm. xool na ni Eumeu Sène war na bëre moom tamit ak Bombardier ñooñu ñëpp mu fi ak Gris Bordeaux mu ficeler seeni komba taxaw amul dara lu koy puus ba muy def loo xamante ni nit ñi dañ ko ciy sikk te loolu Gaston ko def hmm. moo tax man dama teey rek xam naa ne Gaston li mu wax na ko def am naa yaakaar ne au mois de mai bu ñaari mbër yëpp wéree danañu bëri. am na solo dégg ngeen wax bi nga xamante ne suñu papa Bourkhane wax na ko ñu bëgg nga ñëwoon ci combat bu mag bu dox ci diggante guy gi ak rëg-rëg ñu ci bari ñoom ñaar wax nañ ku ci nekk xas-xas loo sa morom kii ne ko dama laa onze sànni la onze ba nga ñëw kii ne ko di nga jàpp jën boo xamante ni lébu yi bëgguñu ko ban lan nga gis ci combat boobu. waaw combat boobu dañ ci félicité euh, Mao Cissé ak équipe bi yëpp. Hmm. ndax combat dañ koy togg. Hmm. combat staff moo koy defar. combat yi fi baax yëpp da ngay am bu baax pour nga mën koo réussir. te Mao boobu ba léegi gis ngeen date bi le deux lañ ko waroon def. alors il s'est trouvé que ñuy def euh, inauguration arena ñu puusaat ko waxtaan ak partie ba ñu juboo ñu jàppaat date. war ko def le vingt. ma ne jour boobu comme li ma doon wax rek ci komba euh, Tapha Tine ak euh, Boy Niang jour boobu fête la. parce que amateurs yi li ñu soxla ku dem ba décroché ko décroché leen ko. Mm. ñooñ dañ leen war dañ leen war a glorifier. Mm. dañ leen a war a gërëm. Mm. te loolu la loolu la maa aussi si def. combat guy gi amoon na problème guy gi bëggul woon ba finalement naxante nañu ak ñoom ba ñu d'accord ñu monter combat bi ñu ne le vingt la ñu war a bëri. mais combat bi nag dafa am lu spécial lu ci am. Euh, nga xam ni ñoo tëwoon yëpp. Mm-hmm. Euh, rëg-rëg da leen daan mm-hmm. waaye guy gi tamit ñu ñuy foogoon ni dañ koy daan yëpp da leen a daan. Mm-hmm. te li ci gën a intéressant mooy da leen di bàyyi ñu bëree bëree bëree bëree ba dee mu daan leen kon suspense am na ci combat boobu. man dama ne seen différence xam nga fan lay nekk. ci xeex bi. kenn ku si nekk dem nga Amérique pour yokk sa potentiel en. Euh, box kenn ku si ne yaa ngi wax ni sa morom dama lay dóor nga daanu wala dinaa la dóor ba ñu nangu la. kon ñoom xoolatuñu bëre bi ndax kenn ku ne am nga sa bëre ba pare ñu xamal la ko. xam nga ne guy gi ñëpp xam ne dafa mën a bëre parce que ku daan la maa balde yaa nga dégg. daan si mais il ñu jàpp ne da mën a bëre. alors euh, rëg-rëg ku daan ñoom Auguste. daan. astafurlah ku daan euh, euh, comment Gris 2 ak ñoom Elton ñoom Bébé Saloum euh, xale bi Jordan ñooñu ku leen daan ñëpp xam nañ ni yow mën ngaa bëre mm-hmm. waaye kon moo tax ma ne seen différence ñoom ñaar ci xeex ba la nekk parce que kenn ku si nekk dem nga Amérique pour yokk sa potentiel en xeex bi ñuy wax du du du ndëgg sërëx bu ñu bëgg a tegalante seen biir waaye xeex bi est-ce que njort nga ni dina am ci combat boobu. déet man bu bu bu bu bu bu bu bu bu kii bu rëg-rëg moom leer na ma ndax moom dafa yokki xeexam ngir MMA bu mu doon def en même temps ak lutte bi nga xam ne moom lay def fii mais bu guy gi moom a desee wóor te man gëm naa gëm naa ni wa moom ku toogoon di wax ne. man damay yokk sama xeex parce que xam naa ne loolu rek moom ma moom moo moo may moo may baare kon man jàpp naa ni kon moom dem na defaree boppam pour xeex. Hmm. ñoom ñaar nag seen différence ci xeex ba lay nekk ku ku mën sa moroom ci xeex ba. Hmm. yaay dominer combat bi mais combat bi du jeex ci xeex. Hmm. ci bëri lay mujjee. ndax nga ni dóor mu daanu moom mën na nekk xam nga dóor mu daanu moom loolu des fois sax taton la. nga gis koo xam ne dina dóor adversaire mu daanu sax te xamul xamul ni euh, dóor na ko mu daan par contre am na nag ñoo xam ne ñoom dañu am précision ci xeex dañuy wax ni sama loxo bii ci menton la war a dal wala sama loxo bii ci telle place la war a dal kooku euh, généralement ñooñ ñoom ñoom ay spécialiste lañu mais gis nga tey ji am na combat xam ne bi waa ji dóoree nit ki muy daanu sax moom xamul ne waa jaa daanu day dem di ko toppaat ah kon euh, génnewuñ ci dóor mu daanu mais xam naa ne ñoom seen différence ci xeex la ñuy kenn ku ne di wàññi sa morom boo paree nag ci bëre nga koy terminer. waaw. Serigne Ndiaye de Sokocim combat boobu noo ko gisee. Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye de ah, bu neex a noonu. waaw parce que Cobra dafa nekk xale boo xam ni Pikine mbooloo dañu am yaakaar ci moom. mu nekk koo xam ne ay combat dafay espacé. mu nekk koo xam ne aussi euh, kenn du fàtte ay takku saanam yoo xamante ni daf ko gagné. teg la woon na fi ay série de victoire ba mujj gi mu am benn défaite. affaire bi xaw ko sonal tuuti. moo tax mu am ay retard sax ci ci ay combat mais Serigne gaay salange la koo xam ne moom tamit boobu ba léegi mi ngi daan kenn dégg ko kenn déggul mu ñu nu ko mu ñël kon euh, ñu ngi xaar bés boobu combat bu neex mais combat bu du nekk combat ay xeex. combat bëri lay doon. ci ñoom ñaar ñëpp ci ñoom ñaar ñëpp bëri lay doon. parce que xam naa ni. donc favori boo koy wax ki ëpp ay combat ëpp ay potentiel ci ñi mu daan kooku ngay wax favori te Cobra non Cobra moo ëpp ay combat yu mu bëri mm-hmm. te tamit ñi mu daan Serigne Ndiaye daanu leen mm-hmm. waaw léegi nag waaye nag ki nga xam ne musul daanu moom kooku moom il faut ñu jox ko benn mention mais challenge la challenge la mm-hmm. nekkul koo xam ne mënul nekk favori ci kaw ci kaw Cobra waaw mais combat boobu daal man li ma ci xool mooy ci bëre laa ci gën a xool ko ci ay xeex. waaw am mbër Liss boobu noo waaw combat nag euh, combat bu spécial la. Mm. ndax dafa mbër dafa serein ci combat bi. Mm. animation yi mu doon def ak da ko wàññi. Mm. di wax wax yu gàtt. kon kooku am na lu mu denc loo xam ni li ko daloon ci euh, Ada Fass lay éviter mu dalaat ko ba tax na ragal naa ni moom tamit am na lu bari lu mu indaal. kii nag dafa am fougue de jeunesse te it ñi koy topp dañoo bari il faut mu am ay nit yu ko wax ne ko dalal parce que bu fekkee da ngay ñëw di engage wu ci benn benn mbir boo xamante ni novice nga ci dangay ngay war a def ndànk ba réussir ko. ndax dëkk dañuy wax ni xas jëm ci pays xas jóge fa moo ko gën. di dugg ci benn dëkk naan tey ma toj dëkk bi nag bay génne ne toj naa dëkk bi moo ko gën a wóor loolu moo tax nag lii tamit dafa war a nekk nit koo xam ne day delloo siwaat boppam. xam ni sport lay def laaj na animation laaj na lépp mais joxal respect sa nawle yi nga ko seqal ngir ëllëg nga mën a réussir boo réussiree ba pare nag lu la neex mën nga ko def bu la neexee fecc bu la neexee woy bu la neexee def la neex mais avant ngay dem daal fexeel ba protéger sa bopp ba mën a réussir sa combat. kan mooy favori. foofu euh, ba tey Liss Ndiago challenge lay nekk. favori bi euh, euh, Tapha Mbeur lay doon. parce que da xool ne Tapha Mbeur aussi. ñi mu ñi mu bëreel la ak ñi mu daan mu Gueye ak ñu mel noonu ku leen daan doo ñëw di bëre koo xam ne moom day doog a ñëw ba pare ñu koy jox favori. Mm-hmm. Hmm? mais foofu tamit euh, moom euh, Tapha Mbeur dafa war a xoolaat boppam tey teg làmb ji ci yoon pour mën a relever défi bi nga xam ne mooy dafa jóge ci défaite war a relancer waat carrière am mm-hmm. waaw. jërëjëf Père Bourkhane am na solo maa ngi lay jaajëfal baax. jërëjëf jërëjëf merci. Mm-hmm.